Saliou Lo wala ma ne Alaaji Sëriñ Sëriñ Saliou. <laughs> kon daal ma ne Lo mu Sëriñ Saliou. waaw. ñu ngi lay ziare bu baax a baax balay sax. yàlla ko yàlla nangu yi. ñu ngi sant yàlla ba. yàlla na dolli. waaw sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah. xanaa xanaa namm la lool rek gëjoon laa dégg. wallaay wallaay wallaay ñoo la daw. Eh, wallaay te xam nga ñun moom gannaaw yàlla daa dogal ñu doon alal sëñ Tuubaa dëgg la dëgg weer wi ñu nekk buñ ci duggee moom daanaka suñu xel dootul dem kenn dootul dem ci kenn dootul dem ci lenn mooy jëmm ju tedd jooju muy borom tey bii wa gis bi wa indi saalihu dëgg ñu xam yow fi nga toll ci moom ak yéene ji nga amoon ci moom ak bëgg ji nga ko bëgg. ba tax ñu ngi nañ la woo waxtaan ci ak yow ndax xam naa ne ak mu jot am na yoo daan def di ko def ci bésam boobu noonu muy vingt 28 decembre bëggoon xam ren ba xam ndax na nga ko daan taxawee di nga ko ni taxawee ndax boo ni ko taxawee tamit di nga ko yokk ndax boo ko yokkee tam lan nga ci fas yéene def. jóge. Mhm. waaw. allo. allo waaw. ñu bëggoon a xam nag ren ma ni ni nga ndax na nga ci daan taxawee di nga ko ni taxawee ren wala am ren dana am coppiku wala ndax dana am yokkute. waaw waaw waaw ñu ko rek ndax gan ñi. dégg nga moom léegi ginnaaw ba leen nuyoo ziar leen yéen ñëpp rek. Mhm. ak mboolem ñi nekk foofu ak ñi ñuy déglu. macha allah ni nga ko waxee ñun ban ñuy sàkk rek dañoo jàpp ne Serigne Saliou moo taxoon. ren coppite gi ci am rek mooy incha allah bu soobee yàlla le vingt huit décembre. Mhm. balaa yàgg dara dana génn ci télévision bi wax ak ci télévision ak yeneen télé sénégalais. Mhm. liñ ci bu soobee yàlla mooy. Mhm. berne lañ ci fas yéene def ren. Mhm. ci lépp loo xam ne musée lay doon ak luy teraangay doomu aadama. Mhm. ndax Seera Fall dana won ndab dana woon dabe ci ndab. dabe ci ndab te réew mi ñu nekk nii. soo fi bëggee ak lépp lu mu mën di doon da ngay ñeme tey dimbali nit te yàlla tax moo tax nag ren incha allah bu soobee yàlla rek bu ñu xëyee mhm. fas yéene def ay berne yu bare bare bare yu dem xelkoom mhm. yu dem ci barabu Sëñ Saaliw ak mhm. mbooleem ci daara yi fi nekk di wàccali ay kaamil Sëñ Saaliw ndax amuñu lu dul moom ñu fas yéene koo yendoo rek ba ngoon jot ak kilifa yëpp ñu koy yëgal ñëpp nag di ko fàttali ñëpp incha allah bu soobee yàlla noonu rek lañ ko fas yéene doxale bu soobee yàlla nee naa leen ñun lu ñu am rek suñu lépp seen suñu bind suñu nooyi suñu alal suñu njaboot lépp mooma waaw moo tax nag waxtu wu ne rek dañ koy sant. Mhm. waaw amul wenn weer wu ne dugg te duñ sant sëñ Saliou amul. moo xam ci réew mi bitim réew loolu suñu borom dimbali nañu ko ci. Mhm. incha allah du soobee macha allah. mu doon lu am solo moo tax nag gannaaw ñun décembre moom ni ma ko waxee rek ñoom suñu xel buñ ci duggee rek suñu xel fi mu ne daanaka ñëpp saa yir lañ ci daan xalaat waaye Serigne Saliou moom dem na ba moom weer bi rawatina bis yi nga xam ne mooy jeexital bi ba tax na rek ni nga ko waxee noonu ñu xamoon ko ci yow moo tax ñu ni woon nañ la woo xool ba xam ren yan coppiku yi kon daal ni ma la déggee bu baax a baax mooy gannaaw njàngum alxuraan daal mooy dëgg dëgg dëgg dëgg solo waaw waaw solo bis bi dëgg-dëgg loola ñaanal ci waa barsàq la mhm. te bëccëg gi dañ ciy ñaanal waa barsàq mhm. ak mbooleem fu nit ne danañ ci duus ay xasaay mhm. wàcce ci ay kaamil alxuraan ñaanal ci ay bar waa barsàq def ci ay berne ak i berne incha allah soobee yàlla waaw noonu rek lañ ko fas yéene doxale ci kàttanu suñu borom incha allah bëgguñ cee woote benn yëngu wala benn cant ndax buñ ko génnee rek décembre bi parce que ba ca ba ca ba ba dañ damay taxawal sant Serigne Saliou yi may def. waaw di ko tourné ci réew mi ak bitim réew loolu mhm. moo tax. macha allah bii nag noonu rek dañ koy def incha allah di ko yëgal ñëpp di ko fàttali ñëpp. Mhm. balaa gi dara dañ génn ci télé yi ak seen plateau boobu danañ fi ñëw. Mhm. ñu waxtaanee ci lu bare bare ñu bëggoon xam itam gannaaw fi mu ne bi nga jógee ci ñaari ndigal yoo xam ne day daal di niru benn ndigal ndax ndigalu sëñ Cheikh Saliou ñu tegaat ci ndigalu sëñ Moustapha Saliou ñoom ñaan ñëpp woote xel comme kenn ku ci nekk ba mu wootee nga bàyyi sa lépp bàyyi sa yëngu bàyyi sa dal bàyyi sa lépp dem wuyu leen def fa ay bedd ñu ngi koy gis ci image yi saa ne nga xam ne heure booy dem sa oto da koy duy ba mu fees gël sa njaboot doo bàyyi kenn ba nga jógee ci ñaari ndigal yooyee fi mu ne ngërëm la nga ci am ban yëg-yëg nga ci am sa diggante ak ñoom ak sa diggante ak Serigne Saliou waa ñun suñu diggante yi suñu saal yi lu ñu ci am suñu suur yi woo tax mhm. suñu yi ku mu mën di doon loo wóoti ci suñu saal yi dañuy dem wuyu la teel yi ci nekk sax di ko mbubboo sax boo ñu ci wooyee dana ci wuyu boo ñu ci naxee tamit ñu nangu ndax gëmuñu kenn ku moom te prise wuñ ci nag nekkuñ loo xam ne dañ wax ci sunu làmmiñ te duñ ko jëfal mhm. nekkuñ loo xam ne dañ wax ci écran kenn duñu gis ci liggéeyam suñu saal yi mhm. boo tuddoo ne yi nga yaakaar Mhm. waaye du ay waxi kese wala leneen bu ñu wootee tamit sa alal moo ci war a jiitu. dëgg la de kon ñun suñ alal ak suñ doom ak suñ bakkan mooy jiitu ci lépp lu mën doon wooteeg sëñ Saliou. Mhm. ndax bu laajoon bakkan wi jox na ko foofu lañ toll suñ digganteeg sëñ Saliou. ndeysaan waaw ndax man damay faral di wax ne bu yàlla taxawoon yeneen bi taxaw sëñ Tuubaa taxaw sëñ Saliou taxaw man romb leen dem si sëñ Saliou. Mhm. ndax la waral lool nag moo ma doy. dëgg la de. waaw te kenn ku nekk nag daal kon bu yoboo fi ne askanu Sénégal àdduna wërngal këpp waaj bés bi ndax àllarba ji di ñëw jàpp naa ni bu dellu see ci la daal di do bés bi di doon incha allahu rabbi incha allah rabbi bu neexee yàlla ko dogal mm, koo ciy woo fi nag koo ciy sant ak koo ciy gërëm ak kàddu yu loolu buñ ci yeggee incha allah ba nekk ci plateau télé danañ ko wax mboolem kuy julli nag woo nañ ci ñëpp bàyyi ñu kenn ndeysaan ndax suñ daam lu alali sëñ mm-hmm. ñu kenn mm-hmm. bu ma ak mbuurum ñi nekk ci réew mi bitim réew nag ndax fu la ni ñu nit di yónnee alalam ngir jëmi sëñ Saalum ngir ñu koy defal ci bis yooyu kon nag bàyyi ñu ci kenn jërëjëf hmm. sant nañ la bu baax a baax gërëm la ñaanal la yàlla itam sama borom bàyyi la nga yëgaleeg sago bañ yegg ci bés ba incha allah bu soobee sëñ Tuubaa Bienvenue sur Salam Vision.